ginnaaw ne yow bi euh, ñu sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool bala ñuy continuer di leen ñaan yow mi door a dugg si nga def sa abonnement ci YouTube bi yaa xam TikTok nga ne euh, dóor ko mu daanu beneen bi mooy yéen ñu ko def ba pare cant ak ngërëm ñeel na leen lépp loo xam ni euh, dugal nañ ko ci xeetu information générale yi ñuy dugal bu ko defee ngeen mën koo teer a alawtiku ndaamal kajoor nag Idrissa Seck jàmbaari fàkk tëdd ji moom mii di gën a kees gi dana jàkkaarloog taskatu xibaar yi loole daanaka na mu ko defee sax moo gën na mu ko defee sax dama caa gis kóllëre goo xam ni gu mat sëkk la ndax moom mi nga xam ne moo Idriss Seck àdduna bi yëpp la ñuy diglu Sénégal gi yëpp kàddoom la ñuy diglu fi mu toll nii ci xiinim xaana gi nga xam ni jàpp nañ ni nekk na ko ci ci diggante day toog wala du toog ñaar yooyu dana ca wax jeextalu xibaar yi sax danañ ca dànkaafu wala boog danañ ca toftal li nga xam ni mooy ko sell ki nga xam ne setti woon na ko kàddu yéen jàpp ni Idriss sekk war na ko caa wax mu nekk ñetti ponk yoo xam ni moom gone kees gi danañ ko ca xaar te it euh, munta benn yoon journaliste yi ndax day jàkkaarloo ki taskatu xibaar yoo xam ni duñu ko bàyyi euh, muy wax jëmale euh, te gars yi duñ ko laaj ay question yoo xam ni yu fatt taraj la donte moom mi nga gis nii daanaka jàmbaar ci waaye politique te it ku ca xarañ la loole mi ngi koy def ajjuma bi nga xam ni moom la ñu dëgmal kóllëre gi ma wax nag mooy Euh, fi ko ñëpp di xaare nga xam ni mënoon naa dem ca ndakaaru yebbee fa ay kàddoom waaye nag deful loolu dafa dellu si fi nga xam ni fi la commencé euh, fii ci Thiès ci campus bi nga xam ni euh, moo nekk fii ci wetu mairie nga xam ni loole daanaka partem ñoo fi bari lu ñuy def ay information yoo xam ni yu am solo la tayit foofee di Thiès daanaka foofee am bànqaasama kon loolee dina am solo bu baax a baax loole tamit a dana tax mu jox cër wa cees gi nga xam ni ñu bari ñu koy bàyyi xel donte ñu bari tamit tëb baax a baax kon Idrissa Seck information bi moo nekk noonu nekk loo xam ne lu am solo loole nag mi ngi am ñeenti waxtu devant euh, les camarades euh, caméra de TV euh, nar a nekk loolee en direct en exclusivité euh, ci seen seen boobee nga xam ne à partir de 14 heures jëm 15 heures euh, daanañu commencé la nga xam ni mooy live ba di jël gars yi en direct beneen bi mooy bu conférence de presse ba commencé Idrissa Seck kaddu yi muy jëkk a yebbi euh, bu ànd ak dogalu borom bi dana ko yëkkati buy jàkkaarloog Alxaaji Maalik TV ak journaliste yi nga xam ni ñoo fay nekk loolee dara du leen tir ci kon lenn la ñu bëgg ngeen bàyyi ko xel teel a def seen i abonnement yéen ñi bëgg bu nemee bay commencé ñu daal leen koy fëgg ci taabal ji bu ko defee ngeen mën cee am avance bu bu dëgër këcc ci beneen bi ko sell ki di Seydina sonk Sonko mi ngeen gis moom it di jàmbaar ci li mu nekk di jàmbaar ci wàllu politique di nit koo xam ne ku am solo la ah, ci histoire euh, politique gu Sénégal loolee buñ koy wax daanaka euh, mooy avenir mooy li jëm ci kanam jàpp nañ ni te ñu bari jàpp nañ ni Sénégal euh, mooy ki nga xam ni moo ko mën a changé cent pour cent moom mais Idrissa Seck danañ ko ci posé ay tey dana ca wax digganteem ak moom mi nga xam ne jàppoon nañ ni ah, dem na fa heur xëdd di ko seeti gone gi loolee lu mu fa wuti woon lépp dana ci indi leeral yoo xam ni bu ko defee dangeen ngeen mën a xam li xewoon fële nga xam ne moo nekk si te kër góor gi